واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يحيل الصغير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتحى المصلي صلاة وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ku dégg suñu kàddu yi nag xam ne fondation mag bi di fondation Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul FONCAB ñooy woote waat tey fàttali addi bi nga xamante ne moo jëm ci kër Serigne tubaab fu ne ci Amérique ak Canada muy cent vingt dollars yoo xamante ne ñu ngi koy tàmbali di ko collecté ci 26 novembre bi ndax dafa am loo xamante ne dafa dalandoo suñu kaw muy mbooloo mu bari mu dugg ci dëkk bi tumuranke dab leen te seen xel dalul dajul fu dul kër sëñ ba tax na kër sëñ yi nekk Amérique yëpp fees na dell fondation bi taxaw nag ngir delloowaat xar kanam kër sëñ nañ ko xamee woon te mooy këru yar waaye këru jaamu yàlla waaye këru jàngale xam-xam ba tax na mbooloo mi fa nekk nag ñu bëggoon a collecté nu mu gën a gaawee tey woo ñi nga xamante ne ñooy defkatu lu baax yi rawatina mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ngir wutal leen daluwaay buñu mëna dal ba keroog ñuy mënal seen bop ba tax na nag fondation bi mi ngi ciy wo ñëpp nu mu gëna gaawé waye nu mu gëna a mu melni dafa am lu ñu boole nak muy watul wusqa mi xamne lan fi zaama laha du dag ba mukk ba da auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم axwaykum ñun jullit yëpp ay mbokk lañ kon foofu ñuy jàppalante suñu biir ndax loolu mooy dëggal suñu jullit قالوا نه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان نانيو نانيو جابالانتي كي لاي بيرانتي وايت جابالانتي كي ديمبالانتي تي لو باخ تا باغنا جابالانتي تي لو خامني امول نو نجيرين وفي الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ngëmu kenn du jëriñ feek li nga yéene sa bopp yéene ko ko sa morom allahu fi usni al abdi ma dama habdu fi awli abdihi suñu boroom moo ne du jóg di jàppale jaam bi nga xamante ne loxoom du jóg te di jàppale ay mbokki jaamam dellu ni irhamu man fi lardi yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci suuf si man yàlla mi nga xam ne maa tiim asamaan ma mën a wesaare sama yërmande ci seen kaw kon mbokki wote woote baa ngi noonu ñoo ko déggandoo am na woote waaye amul xaare wa axiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin rahmanu habli jamil xalqi rahmataman yuni ani charri man qur'anuhu qara fonkab fondation cheikh ahmadou bamba khadim rasoul السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكبر